kee man a wax la amul dama ne ndax kee mën a wax amul la ma wax ma waxi démb moo la ma waxi tey dama ne Koukandé a mën a wax la amul aw dama ne ndax géej gi mën naa gaxar du tamxarit laa wax dëggalal sa boppa ba dëggalee sa boppa rek boo dëggal ma boppa du tamxarit laa wax dama ne ñetti fan yàggatul ñetti fan ba ñeenti fan yàggatul tamxarit day du daana ne heures angi xam ma angi suba man trois heures maa ngi suba jut di la xaar baa bàyyiwul du ma bàyyi baa dawul man du daw di ma la de géej kenn rek la ko yàlla mayoon mu xerk te kunkaande maytu ma kunkaande maytu sa boppa dama laa mën naa ko xar dama ndax ma wax géej naa ko xar ka juddu démb mën naa xar géej gi kunkaande laa kenn man mi laa offensé lébu laa offensé l'islam laa offensé ndax kunkaande ba taxawee woon ak géej gi naa ko xar wax naa la amul eh dama ne li wax ba si deelu ginnaaw taxawal u dëggal sa boppa bëgguma dégg sëriñ diw moo ma ñaan moo tax ma bàyyi dama ne ba fekkee liw la wax dëgg la ci yow dëgg la sa ba taxaw benn yoon sëriñ diw moo ma moo tax ma baa ko rek ay fen la maa ko wax dama ne taxawal u dëggal sa boppa la ma wax géej gi mën naa ko dama ne ndax lii mën naa ko xar li kenn rek lii taxoon mu may ko waaye aw mi xam na jariñu laa tus juddu barke dee moo jaay mën naa noo jumal man du ma sëriñ ab télé du ma sëriñ ab man kenn du ma invité ma la wax la ma xamul Kounkandé ba fekkee daxa la seet bës ba taxaw ay vues dinaa ko émalé de Kounkandé émalé diw la wax la ma métti man ma wax taw métti sa bopp ah daxa na dama dama seet bës loolaa wax du loolaa wax daxa ma xamul daxa ma xamul boo tax Kunkande dama ne dama bëgg a woo ma téléphone jox ma sam numéro moo wala téléphone ba fekkee dëggal naa sa bopp woo ma fi dëkk ba fekk la fa. ñii la moytu man bokku ma si ñii la moytu man bokku ma si la ma wax man ka ma xamul man dégg naa man lebu piir la ma waalo waalo piir la ma aw na kenn xamul liw doon kunkande man ñaar la ma boole kunkande aw daxaa xamul lebu yi xamula waalo waalo yi waaye kon baa ji xamoon dinaa maytu Koy Kandé man naa ko xar lii wax leen ndax ku Kandé naa xar lii. kee mën na